li sakinatan bi kulli janna min dari minan yaatal minna li sakinatan bi kulli janna min dari minan yaatal minna ixwati al aizza uqaddim ila xadratikum taxiyat al islam wa aqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi ginnaaw buñ tàmbalee ci turu yàlla wu màgg wi sant yàlla sunu boroom julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa di ñaanal sëñ muntaxal bachir sunu boroom yàggal ko fi tamay ko wér mboog njabootum sëriñ Tuuba yépp ak ñun donga yeeg taalibe yeeg jullit yépp di ñaanal sëriñ mooñu faati mi fi tooge jataay sëñ gaawaan sunu borom yàggal ko fi tamay ko wér mbooleem njabootuk sëñ gaawaan di fi ñaanal sëñ Abdul Xaadir Jiili mi fi toggee jataay bi sëñ Modou Mamoun ak rakkam sëriñ Abo suñ borom yàggal leen fi tamay leen ak wér ak mbooleem njabootug sëñ Modou Mamoun gépp di ci jokkaat sëriñ Cheikh mi fi toogee jataayub Cheikh Mouhamad Roqee sunu borom yàggal ko fi tamay ko wér ak mbooleem njabootug sëñ Modou Roqee gépp ak donga yépp ak jullit yépp mbokk yi ñu ngi yëkkati ay kàddu yu ndigal ci kanamu kilifa muy lu diis waaye nag ndigal caabi la bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi te lu taalibi di def te teg ko ci ndigal mën na ko jariñoo te mën na caa jariñe laa tafaaloo shay'an bi gayri idni fal idnu shartun fi qabooli shani bokk yi may fàttali ne baat bi njëkk rot ci yoonu murit aw inna awala kalimatin fi dusturi lmuridiya kaanat rabbi asxaabaka bilhimma bokk yi baat bi njëkk a ci yoonu murit mooy sëriñ Tuubaa nee na rabbi yaral asxaabaka sa àndandoo yi bilhimma ci pas-pas ak pasteef kon murit mën naa ñàkk lu ne ba mu des yar kon bokk yi loolu yi li lay wax ni la lu wér la ci sëriñ bi keroog ba mu yebalee cheikh Mouhamadul Moustapha ak cheikh Mouhamed Fadil ngir ñu jàngi lu mu leen wax yaa ya fala yaxurrannaka xiilu naas waxi nit ñi bu mu leen waruloo te loola mooy lan anta sayiduna wabnu sayidina yaay sunu sang te yaay sunu doomi sang ndax yaa yaa ko yor sëriñ bi ne leen fa inna afdala siyaadati ngën gi càng maktasabtaha li nafsika mooy li nga fàggul sa bopp laa maktasabatha lakka abaun wu judud du loo xam ne say baay ak say maam ñoo la ko fàggul daal dikkaat nag ci lim waxoon daal ne wa inal faxra la fi himamil aaliyati laa fi rimamil baaliyati ndam lu nit di ndamoo nekkul ci ay yax yu funux naan sama diwu ma jur diwu ko jur di wane judd bu rëy loolu amul solo ndax doomi diw ràkkal fexe bay diw koo laal mu niil moo ko gën kon bokk yi himma boobu mooy li nga xam ne mooy la sëriñ Tuuba indi muy manhajuhu al asaasi li tarbiyati ruux te loolu mooy huwa tasawuf kon fa mahamatuhu al asasiya tatamathalu fi tarbiyati nafs wa taskiyatiha xata takuna qadiratan ala taxallub ala ahwaiha wa ala muqawamati dawaai bokk yi yar googi la sëriñ bi indil jamono te moom la indil murit yi ngir amul lenn lu mën a jariñ askan wi lu gën yar ak i teggin kon nag te yar ak i teggin ku ko bëgg da ngay dellu ci tasawuf moo tax yitte bi ci jiitu mooy tarbiyatu nafs tàggat sa bakkan sellal ko comme ni ko alquranul karim waxe xad aflaha man zakkaha wa xad xaaba man dassaaha bokk yi ngir nit ki bu notee bakkanam bu not bànneexam mën a jànkonteeg ay bëgg-bëggam wa tatxiiriha min al sayi a mën a fóot bakkanam ci ay jikko yu ñaaw tax wa taxliyatihi bil axlaaqi alxasana ak takkaayale ko ay jikko yu rafet su boobaa fu mu mënta àgg ci yàlla amutu cër bu mu mënta am itam amut kon nit ki la koy gàllankoor moo di ñàkk yar ak i teggin moo tax sëriñ bi li mu indi mooy yar ak i teggin te njëkke tarbiya gi nag ci nafs ba mu jógee ci nafs gis nga ne li wér te wóor mooy tagg nañ ko sax ci mu ràbbi ne moom mu rabbin la li arwaaxil muridin moo tax mu ne tarbiyatu ruux wa taskiyatiha wa rabtiha bi xaaliqiha hiya almahamatu raisa lirrusuli alayhim assalaam lirrusuli wal ambiya alayhim assalaam moo tax suñu boroom wax ne huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma wa in kaanu min xablu la fi dalalin mubin kon bokk yi li taxoon sëriñ bi ñëw ak li mu indi mat naa fonk te mat naa bàyyi xel te saa su ne war nañ ciy delluwaat bu baax ndax lu jamono neex-neex lu barke bari bari lu xéewal yaatu yaatu li ñu fi bàyyi wares na koo xam kon nag wax allati kaana cheikhuna alxadim yarxadu biha wa min ajliha kawwana shuyuuxa wa nasabahum wa kallafahum bi tarbiyati al atbaaci wa tarqiyatihim ci loolu la sëriñ Touba formé woon seex yi mu formé samp leen wëlbatiku euh, yar leen ban jàngal leen ban ar mu yar leen ban ne nër mu yee leen ban ne jar mu sancal leen i dëkk jël ak njaboot boole kook ñoom ngir ñu la nekkoon ci moom tam def ko ci ñoom ñoom ñu mën a summi ko ca ña leen topp firnde bi mooy dëkk bii ñu toog di Daaru Salaam sëriñ Touba nee na Cheikh Anta lu nekk ci moom maa ko ci def ba mu des tawfeex nee na tawfeex rek laa fekk sunu borom def ko ci moom te borom dëkk bii mësta jox sëriñ tubaab mu falan ko wala mu ñaaw ci njortu ndax nee na woon seex ku fonk lu lew la ngir la nekk ca seex moo ko def ci moom am na ku mës a ñëw ci moom bëgg a jébbalu mu ne ko jébbalu loo ci jublu mu ne ko bëgg a defaru mu ne ko defaru tàqoo la laaj te mënatuma tàqoo kudut yàlla da ngay seeti koo xam ne defar naa ko nga tàqoog moom kon bokk yi jege sëñ Touba ci deret baax na waaye amul njariñ jege sëriñ Touba ci ab juddu baax na amul njariñ yor alal baax na waaye itam mën naa lor li am solo mooy defaru ndax sëriñ Touba defaru assalaax wal islaax defaru ak defare moo yëkkati woon sëriñ Touba xaadimu rasul bokk yi kon loolu lu mat a bàyyi xel la nañ ci góor góorgóorlu bu baax te kat moom moo bind wax ne wa saxa anna al awliya al waasiliin maa wasaloo ila ilahi alaalamin nee na wàlli ñu ci yàlla bi kasratil amaali kassalaati wal xajji baytillaahi wa zakaati nee na wàllu yi ak gaa yu baax yi kenn aggu ci ci yàlla ci jëf wala ci julli yu bari wala ci aj makka wala asaka waaye bal wasaloo ilayhi bir riaya li jumlatil aadaabi bil bil inaaya yara ki teggi na leen àggale ci seen borom bokk yi nañu xool tey sun yoonu murit wii kilifa gu wax fukki ndaw danañu jóg tontu la dal ci sa kaw yàkkala lu mel ni mu xeme ba noppi wëlbatiku na ñoom ay taalibey sëriñ Tuubaa bokk yi ana yar bokk yi ana teggin bokk yi ana li taxoon sëriñ Tuubaa ñëw lu metti metti ak lu xéewal bari bari bari war noo bàyyiwaat li sëñ Tuubaa bëgg ci ñun ñu lal ko ko te mooy asamhu wa taa déggal ko topp ko te koo ne jox naa la sama bopp moomatoo sa bopp te bokk yi ku moomut sa bopp looy def ci sa bopp da koy sàcc te ak càcc du yàgg nañu waxtaanaat ak sunum xel bu baax a baax te xam lan moonu fi baax bokk yi sëriñ Tuubaa waxaat ne wa bil muraaati saadul wara laa bi idaamati jidaali wal mira nee na ñoo ñii ma lay wax di wàlli yu yi àgguñu ci yàlla ci ay julli wala dara waaye sàmmonteeki yar ak i teggin moom lañu àgg ci yàlla waaye du werante ak dàggasante daal di cay teg ne is man raama bi xayri bi xayri fa innahu yuhramu fawzan wanti ba wanti fa képp koo xam ne yaa ngi sàkku ak topp sunna mbaa ngay sàkku ak topp yàlla mbaa ngay sàkku ak topp yonant bi sallallahu alayhi wa mbaa ngay sàkku topp ma mbaa ngay sàkku yiw yu nekk fi man na la wóor ne boo ko sàkkoo yar ak i teggin danañ la ko xañ te ko jariñoo bokk yi nañu dellu ci alxuraan ci baatub itibaax boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa tudd na ko ci woy wi alquranul karim dafa wax ni xaala tabaraka wa taala fi muhkami tanzilihi xulli in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah bu ngeen bu ngeen yéen jullit yi bu ngeen bëggee yàlla na ngeen topp yonent bi sallallahu alayhi wa kuy topp kon nag kuy tàbbi ci néegub topp yàlla te jaaroo ci buntub teggin ak yar fa innahu yuhramu fawzan wanti baa danañ ko xeñ la muy sàkku te it du ko jariñoo ba ilaa yawmi diin bokk yi moo tax sëñ Tuubaa wax ne wa huwa moom yar aki teggin fi daarayni xayru kanzi wa xayru maxtaz bihi zu izzi nee na adduna ak alaxira yar aki teggin mooy ngën gi ndaxañ téew mooy trésor bi gën a riche te ëpp valeur ci kaw suuf wa xayru maxtaz bihi zu izzi lépp lu nit di tedde rek tedd nga ci yar aki teggin moo ko gën ndax nit danañ ko booleeg alalam toroxal nit danañ ko booleeg juddoom toroxal nit danañ ko booleeg taaram toroxal nit danañ ko booleeg léppam toroxal waaye boole laaj sa yarake toroxal mësta am ci adduna bokk yi lu tax li annahu munawwirul janaani kama yuqarribu ilal jinaani day leeralub xol di la jegal aljanna wa yoojibul matxaladal jiraani kama yubaxidu ani niiraani day waral aw tagg moom képp ku am yar ak i teggin te it day soreel nit ki sawara moo tax Sëriñ Tuubaa wax wax ju am solo daat ne uusika bil aadaabi fil aqwali wa jumlatil afaali wal ahwaali uusika maa ngi lay dénk yar ak teggin ci say wax ak ci say jëf ak mbir yi liñ ci noo ci sopparñi ko maa ngi lay dénk yar ak teggin moo tax may laaj ne uusika baatub uusika ka googu sëñ bi jàkkaarloo ko ne ne ko uusika ndax mbàkke mbàkke yi dañ cee bokkut ndax waa kër sëñ Tuubaa dañ cee bokkut ñoom rek ndax waa kër maam na dañ cee bokkut ndax waa kër Cheikh Anta dañ cee bokkut ba tax da ngay gis gone gu tuut toog kaalawu mag mu toll ni sëñ Cheikh Anta ñëw nga jox ko benn loxo beneen mbàkke mbàkke bu tuut bu tekkiwul dara na ma yàlla jéggal ñëw nga daal di jóg taxaw foq sa mbaxana summil mil ko jox ko ko ndax aussi ka gi yow danga nga cee bokk yi yar ak teggin ku koy am yàlla yàllaay tax nga di ko am waaye aw sant du tax nga di ko am ab juddu du tax nga di ko am barke du tax nga di ko am leneen du tax nga di ko am ka gii wal kaafu fii uusika ndax ñi ñenn rek ko moom wala dañ koy moomale ñeneen bàyyi keneen kaaf gii ñépp a ko bokk kon ñépp a ca war a bàyyi xel bokk yi yar ak teggin ku koy am bu dee dëgg ci yow da nga koy la ñépp waaye nag fonk ñenn bàyyi ñenn wala nga topp sant bàyyi ñeneen am na lu mat a bàyyi xel mooy jamono jii ñu toll danañu warmaal sant waaye jikko la ñuy topp ndax mbàkke mbàkke bu mu mën a doon ak koo mën a sant ak koo mën a doon ak ku mën a defaroo ku la mën a defare bu sa jikko rafetu amoo yar ak teggin topp la araam loolu lu mat a ba bàyyi xel la bokk yi nañu delloo si waat suñuy xel xam na yàlla mi nu sàkk dafa sàkku ci ñun ñuy xalaat ak di bàyyi xel ci li ñu fi ba te mooy wa maa xalaxtul jinna wal insa illa li ya'buduni kon bokk yi nañu bàyyi xel ne sëriñ Tuubaa nee na te addaboo fii alanin wa sirri maal aliyi wa xalqihi bil birri yar googu ñuy am bu nu wéetee ak bu nu wéttalikoo kat noo ci yam dañ koy am ak ak yàlla ak mbindeef yi kum ci mën a doon seeteewul kenn waaye yëkkati ñenn wàcc ñi ci des yëkkati askan wee wàcc askan wii loolu sëriñ tuuba jàngalewu ko sëriñ tuuba ni mu jàngalee yar ak teggin déglu ko bu baax mi ngi mi ngi koy gën a leeral nee na al adaba al adaba thumma al adaba wa huwa an wa abba neena yar dëgg yar dëgg topp yar mooy nga def njekk wormaal sa ndey ak sa baay wala amma ak sa baay tax sa baay tax ku bokk ak sa baay tey góor wala ammata ak sa bàjjan ki bokk ak sa baay tëy tëy jigéen wal axal kabir ak mbokk mu la mag loolu leer la te moom foofu la nekkoon wa cheikha inna cheikha bil birri jadir ak sëriñ ak sëriñ bi képp koo xam ne kilifa la na ko jox wor ma waaye kon bokk yi ngir yàlla dafa nanguwul lenn nekk ci yow nga am ñoo ko jagleel bàyyi ña ca des foofa yàlla tuxu na fa nit ki lépp lu muy def te muy dëgg ci moom booy wormal nit te muy dëgg ci yow ya wala boog fa mu bokk wala boog nu mu mën a mel nga sàmm ni la ko Serigne Touba jàngale ci texte bi nga fonke ko noonu te boo koy appliqué nga appliqué noonu noonu ñu bëri nag tey li Serigne Touba bind dañ koo jàddal xoo dëppalikoo seen bakkan ak seen bànneex bu ëllëgee danañ ko layoog Serigne Touba sëriñ Touba dellu waxat ne albarakatu baytun wal adabu baabuha barke nii ñëpp di sàkku te daw di ko wuti ab néeg la nee na yara ki teggin mooy bunt bala ca yóbbu te wala tasilu lima fil bayti illa min baab te mënoo àgg ca la biir néeg ba te jaaroo ca bunt ba loo ko mooy ñu yuuxoo la xaala tabaraka wa taala waatul buyuuta min abwaabiha kuy dugg kër da ngay jaar ci ab bunt te bunt barke mooy ay teggin wa huwa mabdaun asasiyun min mabadil muridiya wa dusturuha moom yara teggin mooy principe fondamental bi nga xam ne moom mën nañoo wax ne moo lal yoonu murit te mooy constitution moo tax sëriñ Touba taalif ab téere boo xam ne mooy constitution yoonu murit tuddi ko nahju qadaa il haaj fii hasdi zari cheikhina dalhaaj kon bokk yi bu ñu demee ba fii xaatimatil mataaf lu mujj wax ilal jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg bind naa bàyyi fii kon na leen wóor na yéen ñëpp jël naa leen delloo leen ci yàlla ak yonant bi waaye nag nangeen laytaayoo na ngeen soloo na ngeen taaroo ki teggin ilallahi bil qur'ani wa sunnati allati hadat ni saraftul kulla bayuma kenn saraftul kulla bàyyiwul kenn ku ci génne yaa gëmul sëriñ waaye ku gëm sëriñ Tuubaa moom teg na la ci yoon wi ne la wa anna hada siraati mustaqiman fattabihuhu wala tattabihu bu leen topp a ñalla ya ndax ku topp ñalla yi kat doo àgg fa tafarraqa bikum an sabilihi dalikum wasaakum bihi laalakum tattaqun moo tax Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari wax sëriñ Tuubaa ne ko yow de waroo saw askan waroo ku la yaakaar te waroo say bokk waqad nasaxta bila xichin li ummatihi nusxan wana anhu kulla kullu axbaari kon sëriñ Tuubaa moom képp ku ko yaakaar wóoru la bind na nga gis bu ëllëgee nag noo ko jànge ba dëppale kook sa bopp yaa tooñ sa bopp te falaa taxurannakum xayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxarur bokk yi mu dellu ko waxaat ne rabbal muridina wal asxaala xattakama fadal usaara fala hammun wala nasabu kon sëriñ Tuubaa boo xoolee léegi nag la ku la jur xew bi addiya duunee la ku la jur xew ngir ñu mën laa catégoriser kee la bokk ngir addiya ji mën a kawe kii fii la bokk ngir addiya ji mën a néew lu gën dig naa fekk ci yoonu murit amut lu ko gën dig naa fekk amut bokk yi sëñ Bamba jàngalewut loolu mësuñoo xam poos ci mbubbum Serigne Touba poos ci mbubbum sëriñ Touba mësuñu koo xam bi fi sëñ Touba di nekk amul fenn sax ci téere Serigne Touba yi fu baatu murit yi ñëw amul kenn ku ko mën a génne baatu muridiya la mouridisme amul kenn ku ko mën a génn ci mbindum Serigne Touba Serigne Touba xeetu Seyduna Mohamed te ko yitteeloon looloo tax seex na seex saxdu abi ñu naan ko seex seex na seex saadibu ba ginnaaw ba mu waxee ne maadinuhu ajlathum minhu nasara fa asbaha fii tilka albuxuuri nudaara ba mu demee ba ca mujj ga ca nasru ba dafa ne laa tansa nii wala tansa ummata muhammad bu ma fàtte tabul fàtte xeetu sayduna muhammad sëriñ Tuubaa moo tëy xeetu sayduna muhammad moo dond yonante bi dond yonante yi dond ku fi mas a jaar war a tàbbal mbooleem ummatu muhammad aljanna kon kooku li mu yilif murit moo ci gën a tuutu moo tax bu ñu nax suñu bopp bu nu bëggee référence bu wér nañu xool ci Serigne Touba ak i bokkam yam àndaloon te jébbalu ci ñoom ak taalibeem yamu yaral boppam Serigne bi dafa wax ne ñaar ñii ñoo yem ci ñett ñii doom juma jur ak ku ma yar ñoo yem ci yàlla mii ak ci yonant bi ak man ahmadu mii léegi nag la jamono xew ban naan ku la jur waaye arab li mu xam mooy man addabaka wa hazzabaka ku la yar boo gisee nit mu baax ay yaram yéem la da nga naan ko mbokk mi foo yaroo ak ku la waaye nag ni jamono ñëwee fi mu toll moo tax ñu naan ku la jur ku jur nag addiya yi rekk tax mu naan ku jur ngir ñu wàññi addiya ji waaye sëñ Tuubaa nekk toon foofu kon nag bokk yi nañu dund dëgg te bàyyi ay caaxaan moo tax xismul awal kano yu kaanu yumathiluuna xaqiqatal irada lillah aw jawharatul muridiya wa lubbiha kama haddadaha cheikhul xadim nadariyan wa amaliyan fi aqwalihi almathura bittawatur wa fi afaalihi almashhuda wa fi muallafatihi annasriya wa nadmiya ñooñu ñooy dëgg dëgg murid ñi sëriñ Tuubaa àndaloon alladina iktahalat uyunuhum bi bi ru'yati cheikhil xadim wa bi sohbatihi ñooñu ñooy dëgg dëgg murid ñooñu ñoo mat royukaay képp ku tegu ci yoon woowu mat ngëb sëriñ képp ku la mën a jurag koo mën a doon te teguwoo ci yoon woowu te doxe woon nañu doxe nag danañ warmaal sant ba waaye ñun taalibe yi jikko la ñuy topp jikko ju rafet la la ñuy topp alxuraan li muy rëy rëy gisuma fi fenn fu yàlla di tagge ab juddu wala mu fi tagge alal waaye jikko ju rafet la fi tagg daal dina wa innaka la ala xuluqin azim comme que dafa xat te ñu xaw a yàkkamti li may daaneele mooy nañu fonk ak bokk nañu fonk ak bokk te téye kook fukki loxo tey bañ a nax suñ bopp tey bañ a nax taalibe yi tey dund dëgg tey jëmale nit ñi ci ci dëgg tey góor góorlu ci ak mbaax aku jub te xam ne benn bunta fi nekk moo fi des ci ci jaamu yàlla te mooy liggéeyal Sëriñ Tuba lii sëñ Modou Rokhaya rëdd lu ko gën di jaamu yàlla lu ko gën di liggéeyal Sëriñ Tuba ci kaw suuf gisuma ko laa preuve mooy yoon wépp a ko roy ban koy roy it taxul kenn dab ñu ndax roy du nuroo pire kon lii ñu nekk nañ ko téye suñ fukki loxo addo alayha bin nawajis na ngeen ko dugal ci seen rug seen te ñepp bañ wax te xam ne loolu looluy dëgg kon bokk yi nu teewlu rek nu gën a teewlu baax kon bokk yi bayana allahu subhanahu wa taala fi ayatin quraniya maa yuakkidu anna xusna xalqi anna xusna xalqihi sallallahu alayhi wa sallam kaana sababan fi iltifaafi sahaaba xawla wa mahabbatihim la kon wàcc na ci ay aaya yu bari ci alquranul karim wax ne lii fedd li rafetu jikko yonant bi sallallahu alayhi wa moo nekkoon sabab ci tax saxaaba yi ko yaakaaroon nekk benn te moo taxoon ñoom ñëpp ñu wër ko bëgg ko ngir jikkoom ju rafet moo tax suñ boroom joxe ci ay misaal ne walaw kunta faddan xalidal qalb lan faddu min min xawlik kon nag jikko ju rafet ak yar ak teggin mooy li am solo loolu mooy li nga xam ne mooy li li am solo kon nañu góor góor lu taxam li ñu fi bàyyi lan la léegi nag boo xamante ni nii werante dafa bari coow bari kenn ku nekk di fëgg dënnam te kenn ku nekk kët dënn ba ngay fëgg koo cay teg sa baay mbaasa maam mbaasa maam kenn koo fi gis muy woote it bisub baayam lay woote wala bisub maamam sëñ moo Modou yi lañ fi gis mu wooteel sëñ Touba bis di ko ca liggéeyal ñëpp roy ko ku dul moom sa ndey ak sa baay mbaa sa maam nga fi wooteel bis sëñ Modou Rokhaya kon liñ ko war a royee dafa bari ba muy woote wooteelul sëñ Modou Mamoun mi ngi fi amul bis ba tey wóoteelul Seex Anta wóoteelul boppam wóoteelul keneen Sëriñ Tuubaa la wax ne nañ ko wutal bis boo xam ne bis ba kët dañ cay dajale suñuy ñaq delloo ko Serigne Touba te bokk yi mbooleem xeeti jaamu yàlla yëpp mi ngi ci liggéeyal Serigne Touba yàlla yëpp mi ngi ci liggéeyal Sëñ Touba te li gën ci liggéeyal Sëñ Touba moom moom mooy joxe addiya kon nag nanu fasaat nanu fasaat te yeesalaat suñuy pas-pas daggewaat suñuy pasteef lii lii nga xam ne moom lañu fi sunu waajur wii bàyyil muy ndono lu riis loo xam ne amul kenn ci yoonu murit ku ko bàyyeel sa njaboot kan la ku dul sëñ Modou Rokhaya min num sëñ Modou moo fi bàyyi turaas boo xam ne moo fi bàyyi fekk talit boo xam ne ñun rek ñoo ciy bay te du jeex du xaaj ba ila yawmi diini ba ñëpp di ci roy waaye mbooleem koo xamante ne doon nga sa alalu baay jeex na ba nga gëex ko ba alal ja jeex ñun rek ñoo fi tëye ndonal sëñ Modou Rokhaya di ko jariñoo di ci jariñ ba tey ji àdduna bépp di ci nit nag bu la faggulee lu la jomb nit bu la faggulee lu la jomb war nga caa def loo man ak loo mënut man de man de dëgg la maam Seera Fall lañ ma tudde ngir pasteefu sëñ Modou sëñ Modou Roqe yi ci sëñ Touba waaye li wér wóor teg naa ñaar ci sama kanam mooy njàmbaaru sëñ Modou Roqe ya akuk taalibe ma gëm sëñ Bamba ak bëgg ko waaye njàmbaaru sëñ Cheikh Anta mi itam ndax kat téeméeri xar bu leen benn téeméeri xa téeméeri téeméeri gaynde bu leen mennum xar jiite woon ñëpp xar lañuy ñuy doon waaye téeméeri xar bu leen benn gaynde jiitee téeméeri gaynde lañuy ñuy doon kon nag li war a tax nu daggi suñ pas-pas ak suñ pëstéef dafa bari sëñ bi sëñ Modou Rokhaya jëf na ko ñu gis wane na ko waxe na ko doxe na ko taawum bii dib taalibeem ba képp koo xam ne doomi sëñ Modou Rokhaya nga sax sëñ seex du jaar ci saw tuut sama doomi sëriñ la lay wax kon loolu misaal la ci ak taalibe mbooleem ku fi masa jaar ku doon liggéeyal yàlla mbaa yonent bi mbaa Serigne Touba tey jii mënees na laa bañ a tudd wala tuuti la ñuy tudd ci yow sëñ Modou Rokhaya fi bàyyi loo xam ne du jeex ñun ñëpp ñu ànd ci maase ci coow mosu ci am xuloo mosu ci ci am lii mu ñu ba bàyyil coow mosu cee am xuloo mosu ci am ndax liggéey bu bu bu bu yàlla nangu la liggéey bu yàlla nangu na ku ko gis xam ko ndax tànki kanam lay am te du am tànki gannaaw ba mu fiy bàyyi ko 18 millions la ma sëñ bi wax ne moom la ñu bàyyeel tey jii yóbbu nañ ko ba 150 millions kon ku yokk ko xam nga waaye nag qul i'malu la qul i'malu fa sa yara allahu amalakum wa wa rasuluhu yàlla xam na ndax inna laaha la yaxfa alayhi bu buñ la joxee fukk nga dajale fukk ya joxaat ko sëriñ bi yow yow jëfoo de jëfoo taalibe yi dañ laa jox nga jàllale dañ lay jox fukk yow nga dem lijjanti ji fukk teg ko ca muy ñaar fukk nga ñëw jox ko sëriñ bi loolu la sëñ Modou Rokhaya daan def te fekke naa ay kilifa ñëw jox ko addiyaam mu delloo leen ko ne leen mën ngeen a am lu ëpp lii sëñ Bamba la ñuy jëfal laajuma leen ko di ko def ci sama bopp kon nanu xam ne moom mii jëfaluñu ko jëfaluñ ko de sun bopp lañuy ñuy suñ kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk ak sa sa sa kees keesu bopp kenn ku ci nekk ak sa keesu bopp kon kon nag ndam lii nga xam ne am nañu ko ci sëñ Modou Rokhaya muy loo xam ne lu mat a tiitaroo la lu mat a ti tiitaroo la lu mat a sa sagoo la ndax kat ñëpp roy nañ ci sëñ Modou Rokhaya ndax sase lañ xamoon waaye saso moom sëñ Modou Rokhaya ko indi ci yoo yoonu mu di kon nanu gën a dollee góorgóorlu bu baax te xam ne boo amee kilifa gu mat kilifa gu la gu la gu la jàngal yar la nampatal la ci bëgg sëñ bamba gëm sëñ bamba yaakaar sañ bamba wóolu sañ bamba ah na sëñ tubaa doon expliquer saxaaba yi tanaan ñoom bu yonante bi masaa laaj ñetti catégorie nga ciy fekk ñii àttan nañoo jël seen alal lépp jox ko ñii dañuy xaaj seen alal jox ko ñii dañuy ñëw coppati ci seen alal jox ko waaye ña coppati joxe ñooñu ñooy gën a des gannaaw ndax li tax mooy xol xol mooy dëkkuwaay bu mag bi alal ci xol bi la war a dëkk yàlla ci xol bi la war a dëkk boo génnee alal ji yàlla des ci xol bi te yàlla bu desee ci xol bi lépp jag boo téyee alal ji ñu la jox suñ boroom moom génn ndax ko am fulla la kon nag bu nu bokkaale lépp lu fi nekk ci alal loo xam ne wóor nañu ne ñàkkuñu ko li suñuy pexe mayuñu ko suñu jom mayuñu ko suñu xam-xam mayuñu ko suñu euh, farlu mayuñu ko sëñ Bamba rek nu ko may kon buñ ko waree delloo ci sëriñ Touba ku ca desal dara na la wóor ne war nga Serigne Touba kon góor góorgóorlu ci joxe addi yi ngir nu yokk wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. li sadinatan bikun lil janna min li sadinatan bikun min daari minan yaatal minna